da ko jeexal ci jaamu yàlla ak liggéey Sëriñ Tuubaa dund gu fees dell ak eh, ay xikma dund gu fees dell ak njàmbaar dund gu fees dell ak xam-xam dund gu fees dell ak jom ak lépp loo xam ni luñ mën a jële la ci moom ci jikko ju baax jikko ju rafet lépp dafa daje ci dundam googu kon Sëriñ Ahmadou jox la kàddu gi rek nga defal ñu ab tënk ci dundu borom Daaru Muxti ah, jërëjëf sëñ maam Thierno borom Daaru day eh, jëmm la joo xam ni eh, kenn la ci nit yàlla yi doonoon kenn itam ci sëriñ Tuubaa doonoon loxol ndeyjooram sëriñ bi tudde ko sama loxol ndejoor ida ataaka adudi kitaabi fa karrimil kitaaba bi mataabi loolu ginnaaw bi laaj nañ ko sëñ bi mu ne xaddu di borom daal moxti la ci jublu mooy loxol ndey joram yàlla dogal itam naka jekk mu mas di taqook sëriñ bi mosul la teqalikook moom sëñ bi ci moom seeral na ko ne lam yu xaalif nii fii sigarihi wala fii kibarihi xam ne mosul la juyoog moom ci lenn doon itam mbokkum sëriñ bi ndax ñoo bokk wenn waajur muy sëñ Mamour Anta Sali mu feeñe fële ci poroxaam waaye jamono yi muy feeñ tom tombeek eh, xeex yoo xam ni mi ngi doxoon diggante eh, Maba Jaxu Ba ak eh, force colonialiste coloniale yi fi nekkoon yàlla dogal moo tax mel na ne wax nañ ne ca Njaaba Kunda foofee lañ ko joxe aw tur sëñ Mamour Anta Sali mi ngi ko tuddee xaritam di jëmm ju baax di Cheikh Ibrahima al Fuuti Cheikh Ibrahima Kane Alfouti dañ ko tuddee Cheikh Ibrahima Kane moomu ci nit yàlla yu mag yi la bokk bokk na ci moom moo yeesalal maanaam yeesalal na Mamour Anta Sali wirdul Qadir Mamour Anta mi ngi ko njëkk a jëlee ci eh, Samba Tukulóor Ka waaye nag Cheikh Ibrahima Alfouti mi moo koy moo ko yeesalal eh, borom Daarul Muxti nag mi ngi feeñ ci fukki fan ak juróom ci weeru gàmmo ci weeru gàmmu ci la feeñ loolu mooy li dat bi nga xam ne ci la mag suñ mag ñi ñëpp dëppoo eh, muy jëmm joo xam ne itam ni ma ko waxee dafa yàgg a taqoog sëriñ bi mosula teqalikoog moom mosula teqalikoog moom ci ndawam bi mu nekkee magit noonu loolu sëñ Tuubaa moo ko seereel lam yu xaalif ni fii sigarihi wala fii kibarihi moo tax sëñ Moussa Ka day wax ne Bàmbaa ko yor yar ko ci waxtu ci waxtu te mës tàggook tàggoog moom li waxtil kibari njàngum alxuraanam li ci ëpp sëñ Tuubaa moo ko jàngal menn at rek wax ne moom la génn ci loxoom te loola sëñ daara boo xam ne moom la wax sëriñ ñang yaakaar naa moom la ko Mamour Anta Sali jébbaloon moo maam Cheikh waaye menn at lañ fa def nga xam ne li ci des lépp sëñ bee jàngal ba mokkal alxuraan xam-xamam itam li ci ëpp sëñ Tuubaa ko jàngal ba mu des ñaari at rek itam la ko génn ay loxoom menn at mi mooy ba mu defee fële ci njaxate ca euh, sëñ Mor Birama Jaxate di loo xam ne lu siiw la meneen at mi mooy ca Xaadima Jaxate Kala la ko yebaloon waaye lu dul ñaari at yooyu li ci lépp ci Sëñ Tuubaa la ko jànge am njàngam itam euh, maanaam diiru ca njëlbeen itam ku ne xam na maanaam taqoo gum taqoon ak sëriñ bi li sëñ Moussa wax ne buy dem mu yor satalaga ak deram ba ak téere ba ak daaja di saf laram ba lar mooy ab ab jaam nga xam ne fu mu jëm rek mu taqu moom gis nañ ba muy dem ca xaas kamara moom la àndaloon ak sëñ Dame Abdourahmane Lo bi muy dem itam ci sëñ Demba Fall ca piir loolu sëñ Basiru nettali na ko ci Minane Baaxil Xadim ne booba moom ñoom ñaar ñoo àndoon ak Mamour ànd Sali bi ñuy wuti itam téere yooyu Fatxul Aqfal ak Rawdul Faayaq te naar bi lebaloon ko sëriñ bi loolu itam mook sëriñ ma borom dara moo te ñoo àndoon ak sëñ ma Samba jot Sam maanaam li ma bëgg mooy njëlbeen ko moom daa taxoo nag moom taxoo goo xam ne daanaka fu mu jëm rek yóbbaale ko muy ko sellal la sëriñ bi itam xam ni eh, benn bëgg bëgg sëriñ bi bëggu sell la goo xam ni daray àdduna mësu ko lal parce que séentu dara itam ci ànd gi mu ànd ak moom ndax moom ba muy ànd ak sëriñ booba yoonu murid wi taxawagul booba sëñ bi wooteegul moom daa feeñ rek Mamour ànd sëriñ jébbal ko sëriñ bi nga xam ne eh, moom bu sëñ bi mujjutoon fii mu mujj itam ab taalibeem lay doon ndax li ko lëkkaleek moom mooy waajuram moo ko jébbal ba mu feeñee rek lu ko jébbal mi ngoog moo tax eh, ànd gi mu àndoon moom di ànd gu sell goo xam ne yàlla rek a tax bi bi demee ci géej gi itam gis nga njaboot gi moom la ko dénk mu def ca kem kàttanam def ca mboolem la man ak la mënut bi sëñ bi ñëwee itam cant yam ko sant ak la ci xaw lépp ku ne xam na ko ba tey maanaam gis nañ rek masalan bi sëñ bi nekkee ci géej gi buñ seetloo Euh, am na jamono yoo xam ne metti woon na lool ndax sëñ Saliou Mbacké mu baax mi daana wax te wax na ko sëñ Xalil mi nga xam ne sëñ Xalil mu sëñ saab na ko ci téeréem boobu sax mu tudde góor yàlla gi wax na sëñ Saliou wax na ko ne ko am na at moo xam ne moo njabootu sëñ bi cim sàq lañ fanaan loolu booba lépp ngir sàmm rek euh, euh, maanaam ndénkaaneel sëñ bi ak bañ dara laatu ci moo tax sëñ Moussa Ka wax ne boobee ba tey maam Thierno Ibra Faati mësula tàggook Bàmba fil aadaati te lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Thierno Faati faj ko mboolem lu ko sëñ bi mës a digal itam def na ko nam ko nam ko digalee sëñ ko digaloon am njàng waaye loolu it gis nañ mu def ca kem kattanam waaw ku bari woon xam-xam lay itam te loolu mën na ko xamee ci ñi nga xam ne ñoom la jàngal Eh, nga xam ne boo seetloo yoon wi ci gàttal rek eh, lu dul ñu njëkk ñi nga xam ne ñoo njëkk jàng ci sëñ bi daanaka kuñ ci wax am njàngam da gis ne jaar na ci moom jaar ci tàmbali sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallou ñëpp gis nga jaar nañ ci ay loxoom mu jàngal leen eh, ak ñeneen ñeneen ñu bare bari sëñ Mokhtar Binta Loog ak sëñ Lampom Njàmbur ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mi ngoog moo tax. Eh, yàlla dafa da ko defaloon barke ci njàngale mi ndax sëñ bee ko diggaloon gis naa lettre boo xam ne sëñ bi da ko wax ne ko boo defee say lawraat ba noppi maanaam boo boo defee eh, say farata ba noppi léegi sa maanaam sa say say jaamu yàlla ci ëpp na doon jàngale nga xam ne boobu moom wërd la woon ci moom wax ne sëñ bee ko joxoon mi ngoog eh, dëkk bi itam diiru mu fi ne itam diiru muy man moo daa jàngale ba mu ba mënatul itam ci la samp ñoo xam ne ñoo koy jàngaleel fii ci dëkk bi ay daare xam-xam ak ay daare alxuraan te loolu da ci jublu firndeele ko ndigalu sëriñ boobe yàlla dogal nag amul li ñuy wax ba baywu fi ndonol mbind ndax moom daa seeyaloon da nga am léppam ci sëriñ bi rek li sëñ bi bind loolu la doyloo ba mën nañ ne bindut fi ne liñ ko nettali ci way ak ay mbind yu néew a la mooy dongaam ya ca fetto bi nga xamee ne jàppante nañoo ak sàmm si ba am ñuñ cere ci dong yi defal na leen ab marché bu gàtt tamu leen ci yaa rabba najzi li ahli fetto ajmaihim anna xuyurun tafuqu zanna wal amala eh, ñeenti bayit la yaakaar wala juróom yoo xam ne da ci ñaanal yàlla ñaanal yàlla eh, maanaam yërëm leen dool leen sutura fay leen ngën ji fay ndax dañ doon liggéeyal sëriñ bi ba ba daanu mi ngoog eh, ak eh, bayit yoo xam ne da ko wax ci sëñ Mamour Diarra gis nañ ko ak itam yenn bayit yoo xam ne sëñ Mamour Koso moo ko mos a nettali yoo xam ne itam ci wéradéem yi mujj ci la ko waxoon wax ne ayaa rahmaanu ya allah ayaa man jalla naxsha fakun aw ni ala daa in bara jismi wa adnaahu nga ne bayiti toroxlu la ak dellu ci suñu borom ak ñaan njéggalu suñu borom tabaaraka wa taala ilaahi laa tuaaxidnaa bi zambin qad janaynaa ubaydan daa jawan warham lahu faghfir xataaya kathiran yashtaki xuuban ilayka asma shikaaya lima qad xusta min fadlin gadan yuhdika daawa bayit yu am solo ci toroxlul suñu borom ak jéggalu ko ak ñaan ko njéggalam te moom kat bi mu koy wax ni fekk na booba sëñ bi ci moom bindal ko boppam ne ko yàlla gërëm na la te loolu mu ngi ci lettre boo xam ne ñëpp gis nañ ko ne ko mata taqaw aynuka mooy lettre bi tàmbalee foofu xamul ko ne ko na nga xam ne suñu borom gërëm na la ngërëm loo xam ne dama la koy jotli rek te teewul taxul mu naagu mukk ku ragal yàlla la woon ngoog euh, bokk na ci itam lim gën a ràññikoo moom borom Darou Mouhty mooy ku ku ku ku fonkoon jaamu yàlla la jaamu yàlla moom sëñ bee ko ko waaye loolu it mosu ko eh, maanaam mosu cee am gennuk eh, woyofal gum ci def dëkk bii nii nekk na fi juróom-ñett fukki at yoo xam ni maanaam dund na rek lim dund bokk mat na juróom-ñett yoo xam ni mosula tiim lu may ñaari yoon te lu ci ne ba mu amee ndox fay na ko te loolu sax xëy na tiim moom xam nga yàllaa ko digle boo ko xasee def moom jëru nga koy fayaat waaye lu ci ne wax nañ ne ba mu amee ndox fay na ko te dëkk bii ñu ne nii jamono yi mu koy ci booba ñàkkum ndox mi foo ko takk rek weesu na ko fi nit tëdd na fi ci wetti ndeyam di jàmmatu mar ba sedd guy ngir ñàkkum ñàkk ndox te taxul mu nongu booba moom ci waxuma la tiim waaye jàkka ji rek dawul nangu ko fi dugg te jàpp waaw noonu la meloon mësula tiim ci dundam eh, am na kenn ci ay teel bi nga ko ñuy wax sëñ Mor Anta Sil sëñ Bassirou Anta Niang ci téere bi mu def ci Cheikh Cheikh Ibrahima Fati Cheikh Ibrahima fi ayyaamihil xaalida wax na ne maçon si borom dara da ko gis muy tiim nee na bi muy tiim mu laaj ko du la tiim mu ne ko mu wax ko wéradi yu nekk ci yaramam mu ne ko loolu pexem seytaan rek del jàpp waaye yàlla dogal ba muy jàpp mujj yàlla jaare ca génneel ko daqal ko mboolem xeeti wéradi yooyu nga xam ne moom la doon jàmbat ji itam moo ko daa jiite te mësta julle itam ci lu jàkk jàkk ji daal julle jàkk itam di diir mu fi ne itam moo gënoon moo gënoon a taaru ci dëkk bi ndax da ko daa senge waaw eh, biiru ak julleem itam wax na ne moom dadaa ànd ak teewlu goo xam ne mosi fu ko gàggante fi ne koor dadaa nafila fi ne eh, alquran la daa nafila fi ne bi seet moom sulusul quran la daa jàng seen bu xulus loolu la daa wax ñaar fukk isib la daa jàng nga ñetti fan yu ne mu wàcceb kaamil loolu moom sëñ bee leen ko digaloon Eh, waaye kaamil boobu bukkut ak bi muy naafila itam waaye ak naafilaam itam weeru koor dara wutal jigéen ñi boo demee am na lu ñu wax mawlud mawlud bi itam loolu lépp xëy na bu yaatuwoon danañ ci ñëw sëñ bi ko ko digaloon mooy ay bis gu màggal guddig rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba fi ne nii ci dëkk bi dañ ko wutal bërëb boo xam ne moom la ñuy wax mawlud mawlud boobu nag ba léegi ñu ngi koy def waaye foofee nag fa la daa wutal imaam joo xam ne jigéen ñi fa lañ daa jullee ci koor gi moom nag mu sàkk ñeneen ñoo xam ne ñoo jiite ci jumaa ji waaye moom it alxuraan la daan nafila guddi gu ne moom loolu mu daw ko def koor ak lu dul koor la ci la ci yemaloon waaye ak julleem sëñ Moussa da ko misaal ci ne monsieur fu koo gàgganti monsieur fu koo sàbbaal du juum du fàtte mos la jamaj nga xam ne eh, teewlu gu mat sëkk la ci àndal eh, xiyaamu leel itam da ko saxaloon maanaam guddi gi da ko daal da ko daal dundal loolu yi lu saxaloon la moom loolu gis nañ xawaa fadla tilawati ma qiyaami ila fadlil jihaadi maa ribaati moom la Cheikh Ibrahima Diop Machar yi waxoon muy jëmm joo xam ni gàttal gi mooy nit la koo xam ne mosula mooy yàlla lam yaa fatan lam yaa si amrallahi yowman walam yasluk si waa qasdi siraati ba ci mooy yàlla yu sew sewaan yii nii ay jëw yëpp daw ko def sëñ Moussa Ka wax na ne du tudd nit fu mu newul du boddi eh, du jëw du jëwloo ña fa moom du ngàdde mi ngoog kon kooku mooy Cheikh Ibrahima Fati di ku fonkoon nag liggéey di ku fonkoon liggéey ndax danaa wax ne suur na ciy dëkk ci asgor lu ko waay jënd rek jar na ko daa mas dem fenn ànd ak sëñ mu daw ball bi ñëwee nee na fekk boobu am miraas lañ demoon sax bañ ñëwee nag xewlu wuñ bañ ñëwee nag ñu defaral leen eh, ñu xewlu ba noppi fii ba mu fi ne diiru mu fi ne ab gàtt lañ daa rey mm, njaboot gépp ci lañ xewlu yàlla dogal nag bañ ko rayee rayalee ab gàtt ba mbooloo mi xewlu ba noppi mu ne leen daal bu ngeen gisee ma nangoo liggéey te duma yàq lii rek la mooy suur naa juy dëgg ci asgor lu ko waay jënd rek jar na ko maanaam asgor wërta bàyyi boppam kenn di ko gàddul leneen moom dawut loolu mos ko nangu ñi foo gisee fii toolam yi ñeen fukki kilomètres la 40 kilomètres carré la yoo xam ni ca jamono moom daana ak mbooy dawu fi am daanaka ndax fu ci ne teg na fa bërëb gisee mag ñi mu àndal fu ci ne daa teg fenn sëñ Paate Jeng wax na ne ñeent fukki kilomètre yu wër ñeent fukki kilomètre yu wër la Cerno tooloo maa ko wër waaw jëmmi 40 euh, dem ay dàggaaki sàq lañ ko daa def yoo xam ni euh, moom kenn xamul sëñ Abdou daana wax ne ñaari leetar dikkal na ko yoo xam ne yombut nga gis kum kum keneen keneen ko yombut amaat te mooy tubaab yi bind nañ ko leetar di sàkko ci moom ab dund hmm. rawatina ginnaaw eh, xeexam guerre mondiale bi ak prisonniers yi nga xam dañ leen jàppoon fii ci Louga te am ñu luñ dunde waaye Sëñ Tuubaa itam bind na ko lettre boo xam ni da ko ne kër gi eh, dañoo bëgg maanaam bëgg nga indi fi ab dund dafa manqué ab dund loolu Sëñ Abdou Khoudoss daana wax ne ñaari lettre yoo xam ne dikkal na ko te yombul nga gis comme ko la dikkal moom nag mu daal liggéey itam lépp fàggoo ko bi rek la moom moom moom la ko la def ñi ko ñi ko daal liggéey itam dawul nongu dañu wax ne mag ñi sëñ Basanta Ñaŋ am na kum ci defal eh, waxtaan wu yaatu ci biir téeram bi yaakaar na sëñ Paate Sall sëñ Paate Sall la moom nee na sëñ bi ñoom da xam ne dañ daal liggéeyee dañ daal liggéey ci biir daari borom daal mooti mooy sëñ bi da leen daa wax ne fu waxtu julli jote li ngeen def lépp na ngeen ko bàyyi dem julli ji ba noppi bu leen julli itam te te jàpp leen bis bu ne itam li ngeen war a jàng ci alxuraan dañ daa jàng alxuraan buñ wàccee itam di jàng xasida waaye njël moom moom dañuy teel a jóg loolu dem ci tool ya waaye duñ taxali comme njàpp itam waaw nga xam ne bu ñëwee bëcc ngoon gi itam njël benn guddi gi dañuy jàng xasida bu guddi gi soree ñu noppalu tuuti balaa njëla ñu tàmbuli ñu jugaat dellu ca dellu ci tool ya loolu nag ndax liggéey bi mu daal liggéeyal dañ ko daal yóbbu ci sëñ ba moo tax mu daa bëgg lépp solo lépp lépp la wax na ni am na jamono yoo xam ne ay gutt lañ leen wutal yoo xam ni woo xam ne dañuy wax da leen di wax ne ah, fu ku ci am njàppam toj rek nga jàppaat mos la itam ndaw loo xam ni eh, day am kattan mën a liggéey ba pare toog ñàkk liggéey loolu mos ko nangu bu daa séddale dara rek ci jotaayam day wax ne jox la xolli gerte ñee def naa nga waaye ñi nga xam ne ñoo toog defuñu dara ñoom lay mujj a jox mag ñi sax buñ mësaa toog fi wetam ku ci te eh, defuñu dara da leen jox ay biteel na leen ñuy tànn melentaan yi di ci def ndax bëggul ko toog loxo kese moom mosu ko nangu lool am nañ kuñ ko mas a indil ne ko mu ñaanal ko mu laaj lu ko dal ñu ne ko doon jëfandikoo ay tur yàlla xam naa ba ak yëf xam naa xam naa naa bañ doon tur yàlla mën naa nekk tur jinne sax waaye lu mën a xaw mu ne leen kii du ma ko ñaanal ndax yow ponkal mu toll nii mën a liggéey liggéey woo xanaa nekk di def kii ba yii dal moo tax ko fonkoon liggéey la te bëgguloon itam ku yaafus jërëjëf sëriñ Ahmadou yaakaar naa leeral nga ñu tënkal nga ñu dunduk borom Darou Mouhty ci loo gàtt loo xam ni yi ngi ci tudd yëpp lu ci ne rek mënoon nañ mënoon cee taxaw waxtaan ci eh, te jeex ndax njariñ yu bari yi nga xam ni làmboo na ko eh, ndax royteef bi mu doon ci wàll yëpp eh, kon ñoo ngi sant bu baax xam naa ni naan loolu doy loo ci am rek daal di doy kon dañ lay delloo kàddu gi nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel ñëpp. waaw ah, jërë ngeen jëf mbokk yi di siyaar ñëpp rek di ñaan yàlla weer wi itam li ci ne ci ay tawféex ak i xéewal yëpp yàlla ah, dajale nag moom boole ñoom maanaam boole ñi nga xam ne ñoo ci gën a jariñu ci dara daraja sëriñ bi di la sant bu baax nag sëñ maam Thierno di ñaan yàlla mu gën leen a defal tawféex ci liggéey bi ndax liggéey bii ngeen liggéey boo am solo la te murit yëpp ngeen koy eh, liggéeyal. yéen ñu ci wutu itam ci ñëpp ñi ci waroon taxaw yéen leen ci wutu donc ñaan yàlla dëgëral leen ci te def leen ci tawfeex te may leen ci lu kawe seen njort dara ci sëriñ bi. jërëjëf sëriñ Ahmed ñoo ngi dellu di la sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla mu yàggal la fi lool te mu ànd ak wér ba liggéey bi nga bëgg a liggéeyal sëriñ Touba te jaare ko ci daal Daaru Muxti lépp yàlla defal la ci tawféex ba nga. def ci lu kawe sa jort ñu leen sant bu baax itam yéen ñi nga xam ni yéen ngi doon bàyyi xel mi Minane ci waxtaan wi woo am solo wi nga xam ni àndoon nañ ko ak Serigne Ahmadou Mbacké mu jëm ci weeru saxbaan wi ak lenn ci dunduk borom Daaru Muxti ñu dellu rek di ñaanal Cheikh Mouhamadoul taxa mi toog toogee jotaayu Serigne Touba yàlla bàyyi ko fi te mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéeneem yi mu am yépp itam yàlla defal ko tawfix ba mu àggale ko te lépp yàlla defal na tawfix ba mu ànd ko moom yu ñaanal bu baax itam ba Bachirou mi nga xam ni moo toogee jataayu borom Darou motti yàlla bàyyi ko fi lool lu yàgg lool te mu ànd ak wér ba yéenam yi mu am ci eggale ko ñi ci kilifa yu baax yi mu fi wut yépp ak i naalam yi mu am yépp yàlla mottalil ko ko te lépp yàlla defal na tawfix ba nu ànd ko moom ñuy gërëm bu baax sëñ Muntaxa Ba ak sëñ Daouda ci caméra yi di gërëm bu baax it sëñ Muntaxa Njaay di gërëm mboolem ñi nga xam ni rek ñi ngi jàppale académie mi nan ngir ngeen di man di jot suñuy video di ko mën di teewlu ñu sant leen yéen ñi nga xam ni itam da ngeen ñu bàyyi xel ak foo leen mën a ne di ñaan yàlla boole nu defal tawféex wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.